Mouride TV askan bi yëpp la fi nekkal parce que jege na chauffeur si jege na commerçant yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal si kaw ca kanam ci lu baax daal. wa ala kulli wa ala kulli haal askurukum jamian ala hada al muxaadara. koy def ci Mouride TV mooy ñaanal leen te encouragé leen ci li ngeen di demee ni parce que lii lu am solo la. tey jii si àllarba ji dëppoo ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru maamu koor ci atum gàddaay gi dëppoo ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février bi ci atum 2020 ñu yebaloon nag suñu ay ndaw ñu wàccoon ci terrain bi jublu woon fii ci. ci corniche su Serigne Seex doon fa defi benn reportage eh, jëmale ko ci ñàkkum yar bi nga xamante ne nii bëri na lool ci biir eh, Touba eh, ba tax na rek askan way yeewoo ci biir corniche su Serigne Seex daan nañu joxe seen ay kàddu rek jëmale ko ci ñàkkum yar mi nga xam ne seetlu nañ ko ci biir dëkk bii di Touba. yar bi de moom war naa daa des ndaxte jamono jii liñ ko ne tey ñu mag démb yi ñëwuñ ko woon ñàkk yar te fekk sa morom bàyyi ci mbedd nga di ko wax lu bon loo xam ne koo dégg. ci léegi dong la am waaye kenn ñëwul ko woon bu njëkk yar bi nag moom waajur yi ñoo waral a sàkku seen bopp yar seen i doom waajur yi nag ci boppam léegi ñoo waxatu seen i doom dara tey ku sa doom defoon dara ci mbedd mi boo duggee ci biir kër gi du tax nga def ko dara kon nag waajur yi ci boppam ñoo war jël seen matukaay yar seen i doom. daal nañuy àddu rek daal di dal ci kaw waajur yi ndax ñi ngi xam le ne waajur yi kat ñoom ñoo yoratul seen ak njaboot. ñu ci bari da fañ fañ war a juddoo juddoo nañ fa lañ leen war a yoree yar nañ ko. dadis nag da cee am ñoo xam ne moom jubante leen du yomb du yomb ndax seen parents yar na leen ñu war a yare defar nañ leen di wala def li war a ne ci ñoom lépp mais nag da ci yar nit su demee ba yàgg moom dina jël tànk yoo xam ni baayam jaaru ci magam jaaru ci yaayam xamu ko loolu nag moom doo xam lenn lenn la moo xam ne mburu na ko ndax démb rek am na sama benn paa bu ma dëkkal fële doom ji ci daara ji la juddoo Kalau la yaroo màggee daw instant bi mu ngi Dakar xawma fan lañ wax la nek nak rak mag ji bi mu demee pour jëli ko li fa nek ci ay xalé kenn mu la wax nuñ toll te kooku bayan ci daara ji la juddo yaroo fa màggee ba toll ni mu toll tay ah jar na delloo si yaru ndax nañ daan yare buñ ko yare won kon nii jamono ji mel du ñu mel. ndax li ni daan yare buñ la daan yare dañuy dugg ci biiru wax la la nga bëgg buñ la dooru yar duñ la def dara te lolé ñu la sant bu gan masaa ñew ci eh, biir kër yow sa yaay kep bu la xolé bët do ñëmé dugg ci biir neeg ba bay xam lu gan nga sol tay nak bu salam alaykum gané ga lay jëk ci digg lal bi waaw koku sen sen wajur ñu ci def li wara def wax dëgg yalla mais ndaw yi da ci am ñoo xamni sen bi dotul na leen du yomb mu ngi gis ku jël yoonu boppam nga xam ne askanam gisul ku mel non mais mom kenn du comprendre lutax mu dugg ci wax dëgg yalla nekk nekk li nga xamantene ni luy waral ñakku yar la euh, tayit amna ci ñenn ñi nga xamantene ni dañuy daal di wax rek ne du ci waajur ci ndaw ñi la ndax jur nañ leen fiñ leen wara jure yar nañ leen itam nañ leen wara yare waaye ñoom ñooy mag daal di aw seen yoonu bop yi nga kenn jaar lo wu leen fa jàngoot damaa ragaloon sama patron bu ma yónnee ma dem bu ma saagaa duma fayu télé sax bu ñu demone du tok suma ma gisee télé bi damay ko ndax ragal ko légui nak emprunté yi boo leen ñu ñu bañ bo len saga ñu fayu bo len liggéey la bo len fay ñu sacc la te ki lay jangal auto da lay day yaru ba paré rek lay yar waye ki nga xamni mo lay jangal auto bu wut yow mi jangal no yaro lo lepp ci waji roy ra rek ndax ñoo jëlul matukaay matukaay lañ jeex ndax ko ci wax mu ni saa doom di mënaluma ko dara nit ni muy juré doom sukk jur ko ba paré tan ni ko dara ci ndawul yalla boko mënalu dara bu ëllëgé mu tok joy lool mbaa mu def lo xamni ni waru ko def ta mo bari ci jamono ji waaw kon nag ma wa yaru mag ni jëkk ñooñee suñ ko defoon kon lépp jàmm rek lay xew. wàllum éducation moom fi ñu toll moom wax dëgg yàlla moom doy na waar ndax li amoon bu njëkk ak li am léegi moom wute na ndax bu njëkk moom euh, yar bi amoon na ndax euh, daa nga nekk ci dëkk dajeeg sa moromu bàyyi nga def lu dul yoon mu yar la mais jamono bi ñu toll nii kenn ñu a yar kenn kenn ñu a kenn taxit xale leen neex def jàngatuñ métier moom daal yar amatul daal moom yar amatul waaw yar moom bëreetul bëreetul ci jamono bi ñu toll nii waaw waaw lu waral maanaam bu jëkk boo musaan romb sa doom wala doomu jàmbur ci mbedd mi nga ñi may fàq yër ko te gis na ni léegi loolu noonu amatul lu waral loolu waaw mais ndax léegi jamono dafa changé léegi andil nañu ay yarin ak façon beneen éducation boo xam ne xëy na bañ xamoon bu njëkk bu dëkk da daan am ñun ñëpp ñu ci nekk waaw ñëpp famille la doon wala bu dul benn famille tamit ñëpp xamante nañ seen biir boo defee dara sa mag sañ na yar sa bay bu ndaw sañ na laa yar leneen ak leneen la legi doomi jambour boko jappé jàppee bo um sens xam nga fa ngay fanani ci ko gis lu may nekkul ci lu jëbut woko ko ko ci lu demee nono do ko ko def ko comme sa dom wa ci googu nit ñu jara yewat nek ñu mëna ana yar xamé seen i ndey xamee seen bay wa waaw ci bari ñu soo gisee maanaam yu bari ñu nekk fi ci ci bari mel melni ñu ñi fi nekk doon ay mag gone yi ñaa gone yaru ci ko ci jima jumante indi ni wax wax ni rek wa ne rek mu commencé gise ko neen quoi wala mu gis boppam. ba tax na manqué bi yar bi daal nay manqué lool xam na ci kenn ki ñoom daal di wax daan ne suñu indee yar bi nga xam ne moom la Serigne Touba doon yaree démb su ko defee rek dinañ am li ñu bëgg ci ndaw ñi muy yaru tarbiya euh, loolu nag nekk na li nga xam ne lu manqué la ci jamono yi ñu toll nii kenn yóbbootul sa doom mu nekk ki ñuy tarbiya ba tax na yar daan nay manqué lool ci biir Touba Mbacké. waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni ñëmetoo ko def ci doomi jàmbur. waaw léegi nak lolu ak la amone bu ñëk lolu moy différence bi ba tax na léegi yar mom bëreetul mom franchement yar mom bëreetul mom, waaw bëreetul ñun niñ tan toogee tamit di éduquer njabot gi léegi ñun goor yalla yi mënatuñoo éduquer kenn ndax buñ xëyee yaangi daw pour lo yobbu ci kër ga xam nga jigéen ñi tamit yëruwuñ ba yar kenn kon yar dana jafé fiñ tondi mom waaw dana jafé trop sax waaw dana jafé mom. léegi buñ ci bëggé day safara naka lañuy def ba andi ci safara yoy non parce que jamono ji war nañu mëna délo ndaw ñi yaraat leen bu baax. waaw sama xalaat maanaam dañuy laal ci démb boole tay waaw ndax démb dafa am jikko yu wàcc yoo xam ne tamit faaw ñu indiwaat démb teg booleeg li xew tay jii nii bu ko defee rek suñu borom mën nañoo dimbali ñu am benn solution bu ñu war a mën a jaar ba jàll. ñenn nag daal di wax rek ne nañu indi suñu bëggee solution daal nañu indi yarub démb indi yarub tey daal leen di teg ñoom ñaar xool bi nga xamante ne nii moo ci gën ñi daal di ci sukkandiku daal su ko defee li ñu bëgg dinañ ko am ci ndaw ñi. jar bëgg dox seen doole bopp ndax ñun war a yar tey comme koy toog fii tey que war ñëw gindi leen ci wàllu war leen yar tey gis ñu def compagnie daal def effort wu dem ñeneen nekk fii ñeneen nekk fii. waaw bu ñu tollee tey ñu nekk fii ñi nga xam nga xam ne gis nga ay vingt personnes ay trent personnes la ci kaw télé bi tey su fekkee diggante neuf heures ba onze heures une deux soo dem une heure jot xaaj bi doon fi gis ñëpp dem nañ ñi fi toog pour liggéey ñoo ngi fay gis. waaw ndax euh, bu ñu demee ba yow ki nga bokkal war koo yar mënutoo koo yar ndax boo xale moom boo ko bëggee yar faaw nga dagg yar jubbanti bant moom boo ko bëggee jubbanti ca ba mu tooy nga koy jubbanti waaw te xale nag xamul yàlla yar la xam. waaw il faut nga dag yar jubanti booleeg wax ba keroog muy xam lo xamanteni moy lolou nga dogo baye yar bi nak jéem ko éduquer mais jamono biñ tolli ki nga bo boo bi yar door ko bo amu sens lenen ak lenen fekk la ca waaw lolou dal mom mom dal dañu dal ci dembu booleeg tey xëy na suñu borom meñu dimbalé waaw ñu gëna ki euh, ñu gëna ki sama xalaat bu gatt nak tamit wat ci daara terbiye yi ndax señtu ba lam daan yaré tamit buñ ko buñ ca waté ak mag ñu bax ñi mën nañu amaat benen éducation waa ndaw ñi mom seen ñak yar gi ci man ça dépend ci mbedd mi amna ci mbedd mi amna ci bir kër yi mais man dama japp né lolu ñak éducation bobu ci bir kër yi la ñëkke parce que parents bi su yaré doomam té ko ci yoon yi war ba ba tay ji su mu pa génne ci mbedd mi day day yaakar nda wara a def comme éducation bu am ci bir kër ga mu ko utiliser ci bir mbedd mi comme ñi mi ci bir mbedd mi ñi mi tassal ci bir mbedd mi mu def ko comme papa ak yaay yi mu bayyi ci bir kër ga su dee ñi nga xamante ne dañ koo féetee rakk mu def leen comme rakk yi nga xamante ne ñoom la bàyyi ca kër ga waa am respect ci nit ñi rek moom loolu moo am solo. mooy leen tërbiya xale moom ñaar dong moo koy mën a dimbale moom bu xiifee mar boo ko xiifalee maral ko loo bëgg ci moom mën nga ko am loolu daal moom moom moom mën naa ko cee dolli moom. ci parent yi la quoi parce que léegi parent yi booy seet ñoom daanaka yaratuñ seen seen doom yi wala bokk amatuñ temps bi. parce que tey di nga gis benn parent boo xam ne il est que mu jéem a jël doomam xam nga jéem ko xiirtal ci lu baax wala jéem xam nga téye ko ci këram mais léegi talatu nag parce que ñoom ngi tal yeneen ñi ngi tal xam nga kër gi ak affaire yooyu noonu mooy mooy loolu daal waaw parce que léegi daal nit ñi dépasse lañ tal xam nga xëy dem lijjanti seen bopp booy seet léegi kër yi Touba sax léegi boo duggee da ngay gis doo doo fekkati doo doo fekk mag ñi daanaka xale yi nga fay fekk waaw kon ça veut dire que tey bu mag ñi demee xale yee fay des tey eh, kon ça veut ko que euh, euh, distance boobu xale yi def res amul kenn koo xam ne mën na faa nekk mën leen a yar. ndax bu njëkk sax da daa gis doomu jàmbur def lu nga xamante ne nii jaaduwut ñu daal di lay wañ ñi yar la soo eggee ci sa ay waajur ñu daal jubbantiwaat la yaraat la te du mujj fenn léeg si nag ku ci doon doomu jàmbur tëdd ko sa sax mën na la ci fekk ba tax na kenn ñimeetul yar doomu jàmbur bi def na ko su dul noonu ci mbedd yi. comme daaw yàlla yaamoon la aajowoo. parce que tey yow kilifa gi soo xoolee nañ la yare woon ba ngay nekk xale léegi yow éducation soo ko defee ci sa doom boobaa incha allah loolu lépp dina deñ parce que bu njëkk parents yi pap yow da nga daan yow xale da nga daan def na su dul noonu ci mbedd nit yow tasa yow dóor la ba bëgg laa rey soo demee ci kër ga soo ne pap sama papa doo ko ñemee nettali sa pap ne dañ maa dóor wala soo demee ne sa papa dañ maa dóor su la nekkuloo nga ne ko sama baay diw moo ma dóor mu ne lu tax mu dóor ma sa papa dala daan delluwaat dóor la waaye tey jii nit ñi ma ñëwoon tase ci mbedd mi dóor doomi kon su ko defee soo dóoree nit doomi jàmbur tase ko ci mbedd mi def mu def naka su dul noonu nga dóor ko papam dalay plainte wala yaayam dalay plainte boobaa yow maam bëgg yar doomi jàmbur na ba plainte di la ci fekk boobaa nga bàyyi leen di leen seetaan moo gën kenn ci ñoom nag di mag xaw a jëm mag sax ndax bejjaaw na lool ndeysaan moom nag mi ngi àddu rek di ñaanal njaboot gi ci barkeb sëriñ Touba yàlla na sëriñ Touba daal di defar ndawi Touba yépp ñu daal di jub koccu daal di am ab yar am ay teggin mag ndaw ñëpp yal na leen yàlla wàññi jëmale leen ci ndigal sëriñ Touba ñu topp ko ndax mooy njëriñ tey mooy njëriñ ëllëg jërë ngeen jëf ngeen baal maas nak mo nekk li nga xamne mom lañ leen lon tay jëmele won ko ci ñàkkum yar mi nga xamne seenu seetlu nañ ko ci dëkk bi nga xamne modi Touba Mbacke li lañ fa jëlee woon ci wéru janvier 2009 ki nga xamne mo leen teewaloon micro bi di Serigne Omar Diop ki nekkon ci kàddu ki di Soxna Fatou Sakho ki newon ci caméra bi di Serigne Cheikh Jaxate ak Serigne Assane Lo mbokk yi foofu la ñuy rek. Mouride TV askan bi yëpp la fi nekkal parce que jege na force si jege na commerçant. instant yi wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal si kaw ca kanam ci lu baax daal. wa ala kulli wa ala kulli haal askurukum jamian ala hada al muxaadara. def ci Mouride TV mooy ñaanal leen te encouragé leen ci li ngeen di demee nii parce que lii lu am solo la.